ak ñi nga xam ne ñooy laaj nguur ak ñi yor nguur ak ñi nga xam ne ñoom lañ ko séqal ñuy jàpp ci liggéey ba tudd ay ministre walla ñu jàpp ci liggéey ba tudd ay ay député wala ñu jàpp ci liggéey ba tudd ay conseil économique social et environnemental <laughs> wala ñu tudd ay haut haut conseiller waaw luñ mën a tudd groupe boobu nga xam ne ñooy wuutu penc mi ci doxal dañoo war a mat ay ndaw ñoom te yor jikko yi nga xam ne moom la doon waxtaane ay bis gi ñu génn yépp jikkoy doyloog jikkoy muñëg jikkoy maandoog jikkoy dëggoog yu ni mel ma ne alxuraanul karim barab boo ci dugg rek gis ci yu mel noonu waaye ma ne boo demee ci Kahfi mbaa ci xasas mbaa ci nam li giinu nekk da nga ci fekk lu defarum pénc malheureusement waaw malheureusement mooy lii defar pénc mi léeg-léeg duñ ko jànge ci alxuraan ji waaye sax boo ko ci yëkkatee ñu ne la nous sommes laïques waaw nous sommes laïques ndeysaan fekk ne euh, alxuraan moom waxul ne damay wax ak ki ne ci diine ji waaye laïcité bi duma wax ak moom waaw tabarkàlla musam la yëg ba mu la yàqal mukk ndax suleymaan kat bi muy jeexal discours bi daf ne inna haasa lahuwa alfadlul mubin waaye bu waxtaanee xorondom gi ba noppi nag ci ngay gën a yéemu ndax waxoon na ulim naa mantiqa tayr sunu borom ne point boobu duma ko bàyyi mu jàll foog ma mosal leen ci waaw ulim naa mantiqa tayr mu mosal leen ci ñaar diggam ak xorondom waaye diggante mag picc ma chef de l'état diggante ma xorondoom nga moo tax misile le président de la république Souleymane ngi ni nekk un président de la république am ci njabootam ku ñuy wax xorondoom moo ki mbokkam sef de l'état ba xeebu leen xeebul xorondoom ya waaye ma ngay bàyyi xel seen wax ya allahu akbar di réew bay topp tooxor ndoom ya di toppatam réew bay topp ndoom pëcc ya wata faqada tayr monsieur le président bàyyi leen xel ci loolu yéen ñiy laaj réew mi bàyyi leen xel ci loolu nu bàyyante xel nun ñëpp waaw tabarkalla rafetal kàddu yi te wàññi te bari liggéey bi roye ko ci xorondoom xorondoom gis nga ni ko ay mbokkam déggale waaw ay mbokkam dañ koo déggal loolu nag léeg-léeg li koy may njiit ay mbokkam déggal ko li ko koy may mooy li Suleymaan wax rek bëgguma ci li ngeen yor dara la la borom xam-xam ba waxoon xasanul basri waaw lu tax nga mujj mujj ñëw ci dëkk bi ëpp fi mbooloo wax nu ko noo def ba ñëw ci dëkk bi rek jékki-jékki ëpp fi mbooloo mooy leen xam ngeen lan mooy indi mbooloo ñu ne ko déedéet loolu lañ bëgg xam mu ne damaa bokk ak ñoom li may am bàyyee leen liñ am kaay na ko secret baa dama bokk ak ñoom li ma am bàyyee leen ak li am xisa bu yaatu te am solo tabarakalla te neex waaw xorondom gi kon bi Suleymaan agsi ci xur wi qaalat qaalat namlatun yaa ayyuhan naml udxulu masaakinakum laa yaxtimannakum Suleymaanu wa junuudu wahum waaw ñiy jàngale balaaxa ñiy jàngale balaaxa ñoom docteur Sàmm waaw kulliyatu ifriqiya ñoom docteur Sàmm ñiy jàngale balaaxa bu ñu tiimee laay ji li la ko décortiquer rekk tabarkal say sa yaram daw kontaan yàlla na yàlla yokk ko wér yaa ayyuhan naml udxulu masakinakum laa yaxtimannakum suleymaanu wa junuudu wa hum laa yash'uruun loolu la xorondam nga wax te suleymaan ak si gut waaye dégg na wax ja waaw fa tabassama daahikan min qawlihaa dégg na wax ja distance ba seen diggante nu mu toll xam waaye daal yaakaaruma ne tiim na ko ndax bu ko tiimoon wax ja day yàqu waaw bu ko tiimoon man naam bu ko tiimoon balaa balaa daaneel ñu nappaaje leen waaye comme Souleymane ak Ségoune wax ko xorlum yëpp daw dugg seen pax yi waaw waaye di gën a wax ja fa tabassama daaxikan mu ne mu muuñ muuñu ree mu muuñ muuñu ree ndax moo ñu mer am na moo ñu soxor am na waaw ree reexi ñaawale am na reetaan am na fa tabassama daaxikan min qawlihaa ndeysaan mu daal di muuñ ndeysaan daal di ree ci waxi xorondom gi ndeysaan am na seen wenn waxtaan woo xam ne téere yi ñoo koy indi waaye alxuraan moom indiwu ko mooy Suleymaan ne ko waaye danga ma teg tooñkat mu ne ko déedéet mu ne lu tax nga naan laa yaxtimannakum Suleymaan wa junuudu mu ne ko dama ne wa hum laa yash'uruun ndeysaan waxtaan wa neex lu tax nga ne dama leen di nappaaje mu ne li tax ma wax ko mooy doonu yëg ndax nun dañu tuuti ndeysaan séet Suleymaan nag mbokk yi yaramum gën a daw waaye ci pénc mi ki nga xam ne mooy politique di laajum réew walla ñu jox ko ko na bàyyi xel xis bu am solo bi Suleymaan déglu na xorondoom yi waaw Suleymaan déglu na xorondoom yi wax nañ seen doléance wax nañ li ñu ragal wax nañ li ñu ragal Souleymane mooñ ndeysaan loolu moo jur manifestation yi am ci pénc mi nga dégg ñu ne syndicat nangam wala mbooloo sangam wala nangam nangam ñu ngay génn tabarkàlla ñu ngay génn ca mbedd ma waaw tabarkàlla Souleymane nag bi mu déggee loolu wax xorondom gi xorondom gi tontu ko ah yow yow ku la wax ne man tooñkat laa bay nappaajee xorondoom mu ne ko waxum lay suurun nee naa ko dul tey ndax kenn du tey di fi tiimu xorondoom di ko joggi parce que yàqulu leen dara waaye nag lay suurun hmm? ndeysaan laa yashurun seeteet Suleymaan daal ne rabbi awzini an ashkura ni'matak ndeysaan Suleymaan ne yàlla jëf jii de làmmiñ wu ko sant awma ko ma bëgg nga may ma nu ma la sante ba nga yëg ne sant naa la ah mu ne ko maa la ko wax ndax lii waxuma ne man nga nga ko defal de waaye defal nga ma lu rëy mën a dànd ak xorondoom mu wax ak ki mbokkam ma dégg wax ja ba noppi xam ko wax ak moom mu tontu ma ma wax ak moom mu tontu ma ñuy tontonte hmm? xaaj Abdul Aziz radiyallahu taala anhu nee na dem nañ ba Suleymaan ne xorondom yi waaye yéen li ngeen roñ pepp mu bari mii lu ngeen koy doyee mu ne xanaa lekk lekk dong nag ñun duñ ji ay tool duñ def leneen waaw pepp mu ngeen di roñ mu ne peppam jigéen ju sàggan ba mel ni nogay moom la ñuy roñ ndax dañuy jàpp ne daf na koo may <laughs> waaw léeg-léeg nga teg benn barab sàngam mu ne jàpp ne dañ koo may waaw ngi ma ni kiy jaag ci àll bi teg dugub ji ci suuf ah xondoom yi tax bi lay jël boo toojee jaag bi nag teg ko ci kaw xorndom yi ni bi ma mayuñu ko bi moom mayuñu ko waaw bu tax foo ko teg rek ñoo mën nañoo téléphonante waxante ba xam fi nga teg pepp mi distance beeg seen kër nu mu toll ñu yebal ñi nga xam ne ñoo yor travaux publics <laughs> xorondom yor travaux publics waaw la ministre bu yor wàllu transport terrestre moom tam ñu woo ko mu mu mu rëdd yoon wi nga xam ne mooy dox diggante kër xorondom yi ak pepp mi ñuy roñ waaw waaw bu ñu ko seetee ba mu baax ñu ne ñu ne leen bisimilah at man ngeen commencé waaw ñu commencé di roñ ci pepp yi di indi ci seen kër gi Abdul Aziz daan ne xorondom gi mu ne Suley Suleymaan ne xorondom gi bu ngeen ko roñee ba noppi xorondom mu ne lu muy lu muy lekk mu ne ko xorondom bi am jabar <laughs> bu fekkee benn jabar la am ñaari fepp lañ leen di boole ku new fepp bu dee am na ñaari doom ñu boole leen juróom benni juróom ñetti fepp ah juróom wala boog ñeenti fepp ku new fepp Suleymaan gëmul loolu fukki weer ak ñaar wenn fepp non Suleymaan gëmul loolu ndeke xorondoom ni muy liggéeyee bokkut ak ni muy lekke xam nga roñ lu mat liibaru pepp lekk ca wenn fepp lañu des nga denc économie boobu réew mu ko yor rek jàll waaw sàqum réew bu royee ci xorondoom rekk jàll xorondoom lu mën a mën liggéey dana roñ kilo pepp bu nogay teg walla liibar bu ñu paree ba roñ ko ba noppi ñu seet boroom kër yi waaw ki ñu yor benn jabar <laughs> ñaari fepp ñu yor ñaari jabar ak ñoom ñu boole ñetti fepp ñu yor ñaari jabar ak nangami doom ku ci nekk daal da am wenn fepp woo yóbbu sa kër gis nga économie boobu bu doon ndox ci pénc tabarkàlla waa pénc mi weesu fii mooy liggéey lu bari lekk tuuti ma malheureusement ñun dañuy liggéey tuuti lekk lu bari waaw tubarkalla lu ñuy liggéey lu bari lekk tuuti ñoom xordoob bi ñun ñu liggéey tuuti lekk lu bari Sénégal ngi si waajoo xam ne lim sol mat na 3 millions bitim réew da nga gis koo xam ne ki moom moom moom moom entreprise bii wala moom moom hôtel bii lim sol mi ngi toll ci mille francs waaw mille francs lim sol lépp boo boolee dàll yeeg kaala gi mbaxane meeg xaftaan beeg salopette bi lépp 3500 mu néew. waaye bu dee ñun tubarkal <laughs> mas naa di def benn benn euh, anniversaire sama émission bi ndeysaan le 22 juillet 99 22 juillet dellu rek tabarkàlla ma di ko fàttali jenn jigéen daal di fay jënd mel na mbubb yët ma waaye keroog ba ne mbubb mi nangam lay jar ci tit ma ne ah tabarkàlla <laughs> laa di xaw a rus nag ndeysaan am na bis may miraas mel ni miraas ñu yëkkati benn kos trois trois millions ya teg na ñu ne moom moom lay jar chemise bi cravate bi euh, veste bi tuba jeeg dàll yi ma ne kii de léegi tey ñu koy dénkaane banque waaw dem bank dénkaane fa sa yére ma ne <laughs> kenn mësu ko gis rek waaye daal xorondoom nga daal ne Suleymaan ñun benn fepp lañuy lekk waaw wala boog ñaari fepp la ñuy lekk Suleymaan daal di fab xorondoom nga def ko ci butéel ba saañ ko boole ko faak ñaari fepp ñaari fepp lañuy lekk mu boole kook ñaari fepp xorondom nga lekk wenn fepp ba bàyyi fa benn pepp wa Suleymaan bàyyi ko fa bët déwén ja waaw ñu tabaski ba ci ëllëg sa mu ne indil leen ma indil leen ma sama biteel ba ñu ni ko fekk xorondoom nga ci biir ak wenn fepp Suleymaan na ko waaw yow yaa waxoon ne wenn fepp ngeen di dund ñaari fepp ngeen di dunde mu ne waaw mu ne ko pourtant benn nga lekk mu ne ko waaw mu ne ko lu tax mu ne ko daaw bi nga fi bàyyee ba ren jii séetoo ma mu ne waaw mu ne ginnaaw fàttekat ngeen te da ngeen di faatu ba faatu woon fàtte ma fi du am lu ma lekk ba ma fi fàtte woon du ma am lu ma lekk ginnaaw da ngeen di fàtte nag nun dañuy économiser ma lekk wenn fepp bi fukki weer yeeg ñaar boo ma fi bàyyi yenn fukki weer ak ñaar ma lekk weneen fepp yu xay na ñu fàttaliku ma jëlee ma fi Suleymaan dari xëm ca la waxe bi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya lii nga ma defal mu ne yàlla lii nga ma defal sama làmmiñu lottu na ci sant la samay cër noonu ni ma ko bëggee daal laa bëgg nga nga wane ma ko jàngale ma ko noonu waaw tabarkalla mas na ko suñ mbàkki si la ca mu waaye bu ba maam suñ tubaab waxee jawit zakaa yi mu ne aw ndeysaan kenn mësu koo gis rek rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta mu tax politicien en tant que jëmm rek war nga cee sant yàlla ba mu yëg ne sant nga ko maa la ko wax de ndax li nga am ñu bari bëgg nañ ko te amuñu ko mooy nekk leaderu politique di génn ci mbedd mi di wax nit ñi la déglu wala ngay génn ci tale bi ndax ñu lay seetaan waaw nga am dayo dimension wu politicien nga dimension wu ko yorum réew loolu jar na sant sa borom bu baax a baax tabarkalla jar na sant sa borom bu baax a baax te xool ni muy fale nga xool nit kuy falu fi muy jaar xoolal li jotale woon Abdou juuf ci réew mi ndeysaan xoolal rek tubaarkalla nga xam ne yàlla rekk yàlla nga xool li jotale maître Wade li ko jotale woon ci réew mi nga xool président Macky mii li ko jotale ci réew mi waaw yal na yàlla yokk leen wér ah ca ngay dégge kon allahuma malikal mulki mu jeex takk tutil mulka man tasha wa tanziul mulka mimman tasha ma tax ku muy jóge ci say loxo ñaare doo ko joxe waaw ñaare danañ koy joxe nag léeg-léeg ndax Nelson Mandela mas na koo def Senghor mas na koo def waaw tabarkalla falu ba noppi joxe yëf yi ak a jafe wala falu mel ne mandat ne ak jafe wala def ñaari màndaa rekk tabarkalla yem ca ak a jafe te yootuloo amul sañ-sañ day yàqu way yootu loo amul sañsañ day yàq way te yàq saw way baaxut mukk waaw mu tax suleymaan sant fi yàlla cant gu rëy rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya yàlla xéewal gi nga ma xéewal day su ma yemee ci jëw merci du baax su ma yemee ci jëw merci du baax su ma yemee ci alhamdulilah xeeb naa ko mu ne ko wa ala ya sama baay Daawud ak sama yaay waaw ni nga def ñoom ñaar ba ñu boot ma nàmpal ma yor ma yar ma ba tey ma mën a jiite lii ma jiite mu naa mu ne ko cant googu xaw ma ma koy jële jeew sunu borom mi lay wax nu dëgg wa ala walidayya ndax pénc moo xam ne mi jigéen ñi bëggatuñoo am doom ña ngay naan ay per ñii ngay piqûre lu ñu def ko mu ne ah mu ne ko man sama yaay naanul ay per piqûre wut <laughs> defuti pexe ba ma judd nii mu naa ah, mun a mun a cant googu xaw ma nu ma la koy sant ndeysaan lay wax na dëgg waaw teet teet teet waaw penc moo xam ne ji jeeg ji bëggatuñoo am doom janq ji bëggatuñoo sëy ña nga ca njàng maag formation yaag loolu ñu dugg ca ndeysaan waaw rekk tabarkal mu ne moom yaayam moom am ko ndeysaan naanul naanul ay per pikiru wut <laughs> waaw ba am ko ndeysaan am ko nee na nàmpale comme soowum ba mu nite mu boot ko moo tax liñ amel suñu way jur yi rëy na liñ amel suñu way jur yi rëy na jabar ji la amal doom jooju li nga ko amel rëy na ndeysaan ma tax penc mi su ma déggee ñu ne waaj a kurpañ na jabar ja ma ne ah waaw dama koy yendoo xalaat walla ndaw sa ndaw sa pes na jëkkër ja ma ne ah ñu dem ba far ku góor ki di weesu loolu ku jigéen ki di ko weesu ñu ko tudd ay violence conjugale je pense que noonu la ndax nit ñi di wax violence faite aux femmes mais bii pas dégg naa violence faite aux some <laughs> si te bi yoon dégg naa ko Souleymane de ku dégg cantam gii Souleymane ku dégg cantam gii nga xam ne fa mu ko tibbari waaw xam nga ne toog ak xorondoom naan ko na nga def mu naan maa ngi fi loolu du lu tuuti de ullim naa mantuqa tayru tuutiwut ah tabarkalla tuutiwut de te dégg ngeen moog baayam ñoo àndandoo sant sunu boroom bàyyi jàpp ci loxo ba yëkkati waaw ñoom ñaar ñëpp ñu ànd ne alhamdulilah allasi faddalana ala kathiri min ibadihi almuminina ndeysaan moog bàyyi ma ko bokkoon wax. mbokk yi alxuraan moo nuy jàngal politik dina ko jàngal ci Suleymaan ak baayam Daawud du jàngal ni Suleymaan def ba defar pénc ma ñu toll ci di waajal ay élection ci at mali di ñëw yàlla na ak agsi te fekk nu fi te buy dem yàlla na nu fi bàyyi mu nu ko jàngal ci suleymaan waaye suleymaan toll ci yàlla defal ko lu jar sant ko suleymaan xeeb ci boppam mu ne ko xéewal gi nga ma defal jar na sant la xéewal gi nga ma defal ci suma diggante ñaari waajur jar na sant la wa an amala salihan mu ne yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma duutuma defati lu la naqari allahu akbar wa an amala salihan tarda ndax yàlla jox la xéwal ba noppi ngay def ci xéwal yeneen yu mbëggul wax dëgg yàlla yaa ngi koy tooñ wa adxilni bi rahmatika fi ibadika salihin ku ma sa baax ci pénc mi boole maag moom yow yàlla mbokk yi bind bi jeexut waaye xisab suleymaan a xorondoom gi njàng maa ngu noonu bu dundee ba ëllëg yàlla dund ba ëllëg te weesu ko ñu ñëw nag ci diggante suleymaan ak picc ma ci wàllu politique ci pénc mi jërë ngeen jëf ak seen for yëkkatee jataay bi ndax suñu mbokk yi xëy xibaar yi ñoo nekk ñu taxaw yor seen i këyit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar ci tubaab firiñ fàncalan ko ci wolof ñaanal yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu sponsor yii yàlla yàlla defar seen i mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poos dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bismillahi arrahmani irrahim rabbi israh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 ñaanal ko tawfiix sutura ak teraanga ak poche def dara dem bi ma yëkkati jataay bi ci wàllu ni alxuraan jàngale politique ak pinc mi ni nu ko war a yore soo ko déggee dangay xam ne kon politique duñ wax ne ab sëriñ du ko def wala nitug diina du ko def waaw xëy na mën nañu wax ne wate ji wut walla waaye politique kon mooy lan mooy waxtaan ba pénc mi mbootaay gi koy yor yëg na ñi toog ci kër gee leen yónni ndax nun ñëpp mënuñoo doxi benn yitte su fekkoon kër gi maam Ablaay Ndaw dafa xëy ñoom ñëpp waa kër ga ànd dem marché ñoom ñëpp ne ca marché bay duggi kër gu nekk dem kon marché ba kenn du fa xëj nan lañuy def mooy kenn ca kër ga mooy aye moom dong mu dem marché tugg indi togg ñu añ waaye bu jeeg jëpp demandoo woon marché marché kenn du fa xëj loolu mooy nun ñëpp cim réew mënuñoo doxal ñun ñëpp yittey réew mi ñu tànn kenn ci suñu biir ne ko kon yaa aye ndeysaan yaa aye yow yaay dem marché yaay togg añ waaw tabarkalla bu fégalee jox keneen ay gi moom ngeen di dégg ñu naan euh, mandat waaw nga def nangami at daal di fégal li la nga fégal ne joxaat leen ma bu fekkee ay gi neex na daa nga togg palaa yu neex añ bi daana ñëw ci waxtu daana neex daana am vitamine nangam nangam réew ma dañ lay daal di joxaat ne laa kon nag bul fégal waaw toggal geneen ay muy meneen mandat léeg-léeg bu bu bu togg ga neexut wala ñoom seen yooyu xeer bi daal di deseeg yow daal di jël ay ga ci yow teg ci yeneen loxo mooy folleeg fal loolu nag ci pénc mi ñun ñëpp tabarkàlla nu bàyyi ko xel nu bàyyi ko xel te xam ne alxuraan jàngale na ko wax na ci ñun ñiy tànn wax na ci ki ñuy tànn wax na ci li ñuy séentu ci ñoom waaw kuñ ci tànn ku ne wax nañ li ñu séentu ci moom ci ay jikko ala kulli xaal ma ne leen euh, suratul kahfi jàngale na ci lef mu am solo ca suur na yi ni waaye suuratu xasas jàngale ci lu am solo ca Muusa alayhi salaam waaye suuratu naml jàngale ci lu am solo ci Suleymaan ba mu jëlee nguur ga ca loxo ay baayam Daawuda ma jot leen cee indi ci tënk bu gàtt ndax yaatu na kero ba mu jotee ca nguur ga ba war a def discours politique général waxut premier ministre def ko déedéet waxut ministre de def ko déedéet moom ci boppam moo ko defal boppam noonu ko Abubakar defale woon boppam noonu ko Umar ibnul Xattaab defale woon boppam waaw ma netti leen xista bu am solo diggantee ma xorondoom gaa xorondoom ya waaye dégg ngeen fa mujj yaramam daw ci lee ko yàlla defal waaw yaramam daw ci lee ko yàlla defal mu daal di yëg nag moom Suleymaan responsabilité yi ko yàlla gàll waaw daf koo daal di yëg responsabilité yi mooy di wax ak xorondoom yi mu yëg ne kon ginnaaw mi ngi wax ak xorondoom yi te bañ ñu nappaaje ko moo tax xorondoom yi wax li mu mu yëg ne kon ab pouvoiram war naa weesu ndekete kon moo jabooti ñëpp moo jabooti ñëpp fas yeeg xar yeeg nag yeeg bëy yi kenn warta yooy ñëpp dañoo war a yëg euh, mandaam mi dañ ca war a bokk Suleymaan da di ko yëg nit ña mu jàpp ca ñoom ba tabarakallahu waaw bàyyi ma ya mu indi politique boo xam ne bii politique sociale la bopp tabarakallahu penc mi ñëpp ci gis seen bopp mu indi politique agricole boo xam ne bii agriculture la ñoom ñëpp ci gis seen bopp waaw mu indi politique élevage boo xam ne bi fas yëpp ci gis seen bopp xaw ma nag politique bii nga xam ne ci picc yi la jëm <laughs> nan la ko soxna Aminata Mbengue Ndiaye di tuddee yàlla ko yàlla yokk wér waaw chef de l'état buy politique ci picc yi waaw waaw xaw ma nag nu ko amin soxna Aminata Mbengue Ndiaye di tuddee <laughs> waaw ala kulli xaal mbokk yi Suleymaan yëg benn responsabilité ndax yowmal xiyaam yowmal xiyaam balaa kenn siqib jéego suñu borom daf laa laaj say responsabilité rawatin ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew ñu jox leen lu toll ni am réew ku xiif yàlla laaj leen ko ku mar yàlla laaj leen ko fas yi sax bu ñu xiifee wala ñu mar yàlla laaj leen ko waxuma laa nit ñi waaw waaw Suleymaan ne kon responsabilité am na wa tafaqada tayra mu ne kon politique bi na dem ci picc yi picc yi mu laaj picc yi ba xam mbaa xiifuñu mbaa maruñu mbaa rafle fu ñu tëdd allahu akbar Suleymaan dem ci picc yi wa tafaqada tayr waaw tabarkalla waxtaan ak ñoom musa ñoom maam suub waaw ñoom sagal ñoom petax ñoom rammatu seet tét tét ñoom ndobin ñoom kanaara ñoom cokkeer ñoom koppin seet tét picc mu ne waaw mu am ak ñoom mu am am ak ñoom ndeysaan audience waxtaan ak ñoom mu yéen mbokk yi kuy recevoir yi picc <laughs> xanaa nit ñi waxi noppi yàlla ngi jàngale politigum pénc jaar ko ci suleymaan ba mu wóotoo bàyyi ja daawuda suleymaan wax naa xorondoom yi muy gunóor yi gunóor yi léegi nag mu ngi ci picc yi waaw takallama ma alxajaraat wal an ma tuyuur waaw mi ngi ci picc yi léegi ginnaaw bi mu paree ci gunóor yi waaw bi mu ñëwee di wër ci picc yi ba mu yàgg mu gis ne am na picc mu absenté waaw mu gis ne am na picc te bi muy dem amul amul ndigal amul ordre de mission moom picc mi amul ordre de mission te dem na waaw Suleymaan def nii ni kilifa di def waaw fa qaala maa li laa aral hudhud dafa mel ni gisuma musa musa njuburi musa njuburi xam naa bis bu sunu tele bi noppee télévision Sud FM xam nga nu ko Baye Omar di tuddee wala ñoom Babacar Touré yàlla na yàlla sàmm leen waaw Babacar Touré chet tet tet ñu toog at yàgg-yàgg ndeysaan duñ ko gis rekk rek tabarkàlla waaye mu ne waa mbaa yi na nga ci la ngeen nekkoon ñu ne waa mu ne nekk leen ci rekk gisi gi ak mu ci solo waaw Babacar Touré félicitations et merci encore <laughs> kenn mësu ko gis rek waaw xaw ma nag nu Babacar Touré ñoom di tuddee ak ñoom Abdoulaye Ndiaga Sylla ak ñoom Abdoulatif nu ñuy tuddee télé bi waaye daal bis bu télé bi ñëwee naa leen wan xissa yi ma wan leen xorondoom ndeysaan ma dem ci xorondoom ga noonu ko <laughs> suma mbokk Iran Ndaw di defee tabarkalla yi machine ku mu yëg ca mango ngay julli <laughs> yal na ko yàlla yokk wér machine Iran Ndaw ca mango muy julli ndeysaan léegi léeg mu séen ko ci oto bu muy julli te te te tabarkalla moo tax ñëpp mokkal nañ julli léegi grâce à lui Souleymane daan ne waaw dafa mel ni gisuma hut-hut te kat mbokk yi hut-hut ci picc yi gën a la bokk salaaw boo ko reyoon suqi ko boo ko reyoon suqi ko defar ko boo ko joxee ndaw kundaa ñaari lañ ja la koy <laughs> la koy lañ bu ci su ndaw la mu tutub dànk wala boog ci lay yem waaye ctt xam-xam bi ne ci bopp musu njuburi tabarkàlla gaa yi daan gas teen buñ ma sànni seen muy sab ndax moom ñaar lay sab yenn saay day sab teen yenn saay day sab sëgg ñu ne bu sabee sëgg foofu dana am ndox bu sabee téen daañ am nawet waaw kenn mës koo gis picc moomu waaw bi ñuy jàng ci daara ja dañ daan wax ne ku lekk bopp bi mokkal alxuraan liñ ci daan daj waaw rekk ñu ne dañoo bëgg lekk bopp bi ndax ñu mokkal alxuraan waaw waaye daal xawma dañ mokkal alxuraan dit waaye picc soosu moo tudd hud hud moom loola jox Moussa Njubburi am ñu wax Moussa Njubburi ndax daa am aw jubb ca bopp ba jubbu boo xonq wu rafet léeg-léeg mu firi ko léeg-léeg mu lem ko moom ci boppam dafa rafet incha allah bu télévision bi ñëwee duma ko fàtte danaa leen ko wan Moussa Njubburi waaw def ko gros plan <laughs> ndeysaan bu télé bi ñëw incha ba ma defal leen seen émission boobu ard ardul islam ci laa koy boole incha allah waaw yàlla na ñëw ak jàmm <laughs> am kaana min al xaayibin mu ne dafa mel ni dafa absenté waaw ñi koy ruuxaleeg moom naan ko gis nga ko de moom daf lay yeb waaw ñi naan ko picc mi daf la yeb tegu la fenn barki démb dégg naa muy wax nangam di ko suukaleeg moom di leen jaxase ba Suleymaan dënn ba tàng xam nga ne waxtaan bi waxtaan ak xorondoom sama daaxikan bokkut ak décision bi mu nar a jël ci Muusaa Njuburi ndax dañ leen a dañ leen dañ leen a jaxase moo tax nopp chef de l'État kenn du ci sikkal nit nit ñuy jege chef de walla ñuy jege kilifa ndeysaan nga jege ko naan ko diw mii daf laa bañ bërki démb nii la def nangam nangam ba mu ñëw rek Cheikh la tan ne këj bañ koo nuyu ndekk daam ko fa jaar bu leen ko def waaw alxuraan nga koy jàngale kilifa kenn na ci noppam di ko wax sa sa sa njaboot gi nangam yonent bi alayhi salaatu salaam dafa mën sa xëy rek tiim saxaaba yi ne leen yéen ngi toog ñoom ñëpp ñu ne ko waaw mu dellu ci néeg ba daal di génnaat tim leen li yéen ngi toog saaba yi na ko waaw mu dellu ci néeg ba ndeysaan daal di génnaat une troisième fois nag daal di toog ca minbar yéen a ngi toog ñu ne ko waaw mu ne waaw leen góor toogin wi baax na nii bu fi kenn jóge ci yéen nag dugg ci néeg bi daal di mooy sikkalal kenn ci yéen day tax ma bañ ko te bëgguma bañ kenn ci yéen saa bay rabaloo daal di jooy na wal ansaar ginnaaw chef de l'état moo jabooti ñëpp chef yi parti yeeg ñu amul parti yeeg société civile ak nun ñëpp rek tabarkal la nun ñëpp bu nit ñëwee dee ko ca nopp ba ne ko diw baaxut bu ko jàppee ni baaxut rekk tabarkal la yëf yi xat lépp daa war a yaatu mosuñ ju bëri moo tax dañ ko war dañ bi bi bi Souleymane waxee lii rek commentaire yi jóg maa lii laa aral hudhud am kaana minal xaayibiina aha kaana bii na gaa yi jël ko exploité ko gaa yi jël ko exploité ko daf lay yeb waaw tigu la fenn pourquoi amul ordre mission ba noppi muy dem waaw Souleymane daal di mer daal def benn note service cëtë të teg ko ci buntu bureau yi la waziban cëtë aw alxasba an xann aw li yatiyanni bi sultaanin mubin ñett rek kay mën a am note de service bi un danaa ko duma ba ñëpp xam ne duma naa ko ah bon waaw danaa ko duma ba ñëpp xam ne duma naa ko law aziban waaw boo laajee ñooñ alquran ba ñu wax la sadda gi lu ko ci waral ak laam gu njëkk gi loo ko ci waral nga xam ne suleymaan mer na bu ne woon uazibuhu ñu xam ni merut waaye la na ñu xam ne mer na waaw xam naa bu ma ko doon def ci écran bi ngeen seen ni may def sama kanam gi waaw ñàngal ko <laughs> waaw waay waay waay yàlla nañu am teelawaay balaa yàgg law azibannahu azaban shadida waaw tubarkàlla un deux ci ci ci note de service bi aw la asbahanna danaa ko rendi i waaw parce que dem te taggoowut ci kilifa gu bokk ci mbooloo te doxali mbooloo ma yitte lu ne mën na ci juddoo kenn xamul lu mu doxi Souleymane xamu ko waaw ministre yi xamuñu ko député yi xamuñu ko te doxi na ko moom nag mu nar ko duma note de service bi waaye lim ko jeexale baax na ci wala mu indil ma lay wu leer aw la yatiyan nii bi sultaanin mubin waaw daal def na de service bi daal di koy signé def ko ci bint buntu bureau yi waaw penc mi yëpp état ba waaw assemblée ba almala u ñëpp yëg nañ di décision bi Souleymane jël musa njubbuli moom ma nga ca lam nekk mbokk yi chef de l'état bii di Souleymane taxawaay bii la taxaw ci ku jógee ku jóg defi lum la santut loolu tam ci biir kër yeeg daayira yeeg association yeeg yëpp nañ ci bàyyi xel tubaarkalla laa tafaalu shay'an bi xayri izni waaw fal isnu shartun fi qubuli sha'ni defe naa noonu la bu kenn def lum amul ndigal ndax ndigal charte la ci jëf ju baax ñu nangu ko kon tàggoo def tabarkalla dafa gën def yëgle Suleymaan lii mu def mooy kii daa war na tàggu xaw ma fu mu dem nag waaye bu ñëwee benn ma ma duma ko walla ma rendi ko walla mu lay leer bu layee lu leer nag dana mucc ci rendi gi mucc ci duma yi waaw loolu tam gis nga pénc ci mbokk yi ci wàllu politik politique boobu dafa am solo daf ci baax mooy ki def luñ ko def loowul waaw nañ jàpp ci loxoom ba mu yëg ne lii wóor mu ko def ay morom yi ne ah ñu tam kon duñ ko def mhm. loolu politique la bu am solo ci pénc dimbali leen ci yéen politiciens yi waaw dëkk bi fi ne loolu daf ci bari waaw daf ci bari fi ne li nekk ci ay oto yu yàqu yu xënt ci biir dëkk bi buñ ko dindi woon noyyi gi ñuy noyyi kenn du ko mës a gis Dakar daal di noyyi waaw Ablaye Makhtar Diop kon Dakar daal di noyyi mhm. waaye tabarkalle la nga romb oto boo xam ne man bi muy ñëw dakaar 1979 laa ko fi fekkoon laa ko fa fekkoon ba léegi oto baa nga fa mu nekk xatal fa mu nekk xatal nit ñi muusi di ci dëkk ak yi ak mbóoteeg yu ni demee ak yooyu joxe dend ngeen baal ma Souleymane daal def ne su ma suñu jubur ñëwee lay wu leer moo koy tax a mucc ci rendi ko mbaa duma ko waaye bu lay wi leeree nag duma ko rendi duma ko duma mu ngoog mu ngoog wax naa ci suñu bind yi weesu tey lay wu leer assurance ci penc mi doon na am njariñ Cheikh doon na am njariñ waa ji dawal fukki weer ak ñaar te laalul kenn kenn laalu ko doon na am njariñ ñu domp ci assurance am ba kee mbëkkaatee ka mbëkkaate ñu yokkal ko li wàññil ki waaw loolu baax na tàmbali bi dana metti waaye tuuti la ñuy dox rek mu neex ci nun ñëpp xaw ma dëgg la xaw ma déet waaye daan nañ nettali El Hadj Cheikh Touré président Cheikh Touré bu Guinée daanañ ko ko li ñu ne dafa wooxoon safoor ya ne leen ku dawal fukki weer ak ñaar te dalul ci kenn kenn dalul ci yow prix bii lañ lay jox daal koy teg nag muy ci jamono jooja daanaka milliard safoor si tabarkalla di mooy tonte di mooy tonte bañ àgg ca dat ba tabarkalla daanaka kenn mbëkkul kenn mu ne duma leen jox dara. ndekete kon mbëkkante gi ko tey ku fi mbëkkanteeti danaa la duma mbaa ma rendi la jeex na danaa dégg xis ba bu ñu koy nettali waaye nit daal mbokk yi day bàyyi xel loolu Suleymaan daal lii la def picc mii dem daal ci tàggoowul amul amul amul ordre mission bu ñëwee man la fi fekk sunu borom dañu nettali nag ndeysaan jalla jalaaluhu wa azza kamaalu fa ma kafa xayra si tuuti rek musi ñi bëri na jeef si tuuti rek musi ñi bëri na jeef waaw bu picc doon ñaq ñu ne aku ñaqam ndeke fam demoon tol na ni dakaar ak Tamba mbaa Vélingara sori na lool am na ko fa nekk Souleymane mii di chef de yëgu ko moom Moussa Ndioumboury yëg na ko xam na ko foofa la demoon ci tàggoo wut ndax bu tàggoo woon Souleymane mën na ko teg ci kaw logique tere ko du dem ndax dafa am ci pénc mi yoo xam ne bu ci boo ci bu ci tàggoo bu doxalee logique du doxal logique gu daara waaw te Moussa Ndioubér ci daara ji la bokk bokkul ci ci ñuy tudd ay intellectuel ci seen côté ñoom waxin la kon su tàggoo woon bu ñu tëralee logique du dem waaw du dem moo tax tàggoowut mu dem doxi ko waaw tabarkal Serigne sheikh nee na kër bi ñëwee ba mus ba ba Souleymane ne ko yuuxu ko nee def na ko dama laaj to doxale woon soxna ndeysaan Serigne Cheikh noonu la koy firee tabarkal <laughs> rahmatullahi alayhi wa radi anhu al maktum moom daal tuuti lañ toog rek mosuñ ci bëri na jeef bu picc doon ñaq ma ne mu ñëw ko ñaqam fu mu jógee weli ngara lu mu doon si lu mu doon wuti su ngeen ko bëggee xam mbokk yi nan ñaan borom may ñu ñu dund ba altine jii di ñëw te weesu ko waaw jërë ngeen jëf ci ànd beeg si defeem seen xaju yàlla sàmm nu sàmm leen aar nu aar leen lu jub ci wax ji sunu borom la lu ci jubut du moom man mii maa doon jéem rek jéem leen fee wuutu rek nag moo nu ci dugal sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii taxaw yoon seen i këyit bëgg leen na firiñ fàncal xibaar ci waa firiñ fàncal na ko ci wolof ñaan leen daal ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu sponsor yi c 3 e nga xam ne mbokk mi woo na ma ci Espagne ni ma mi ngi ñëw waaye bu ñëwee lu mu jënd rek ci c e 3 la ko jënde ndax suñu jataay bii ak ni mu ci ànde in uridu illa al islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu